wax Iba Naaj ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay bëggee. di la siyaar waaye borom instant yi moom yaay borom Sénégal soirée boo tëgg mu fees concert yëpp di fees lu waral loolu. non mais mais liggéey rek ñun ay xale lañu ay xale lañu liggéey rek ko ñu war waaw ñu ci ñu ngi ci bi ànd suñu suñu grand suñu xarit mu Matar Diop suba teel ànd ak waa suba nekk ci waar bi rek yaa gën a xam waaw. huitième édition Sénégal di organiser affirma noo gisee loolu. waaw ah, vraiment dañ ci kontaan rek dañ ciy kontaan xamam. ndax ñoom bañ ñëwee bàyyi yite yëpp ñëw jël lépp jox ko Matar jóob ñu dañ ciy kontaan kontaan tamit ñëw yéeg léegi presse fi tamit dañuy dañuy neex trop quoi kontaan nañ trop vraiment quoi yaa temps yi seen labal bëri na coow trop suba teel dégg ay yoo xam ne demoon nañ Paris daal si am ñoo xam ne daaw dellu ma mu fekkee dégg nañ sax Sidi Diop ñëw na noo gisee loolu. yow moom bànn nga man mooy loolu daal ba xamal bàyyi rek ci leneen quoi. loolu muy yàqal Sidi ah mais yàlla baax na baal ba pare ñu wax ci rek xam nga ay ay yëfu jàmbur moom xam nga bàyyi ma maanu ci rek moom moom mooy loolu waaye. mais yaa ngi dégg. baa ngi dégg bu baax samay frère lañ sumay xarit lañ waaw waaw. dimanche non dimanche yéen laa invité dimanche faa ngeen ñëw ñu yëngal faayef loolu mënu ñàkk dimanche yéen sama invité d'honneur yéen faa ngeen ñëw baal loolu mënu ñàkk jaajëf frère jaajëf. salaamaaleykum ñu ngi leen di fay di voilà di siyaar ñëpp ñu seetaan.

que ne war na fi am te dafi war a amaat donc gars dañ ko war a gëm ne lii maanaam ndortel la rek et que fii musique sénégalaise toll maanaam ci jéego yi ñëpp di def je crois que c'est le moment ñëpp ñëw découvrir li ñuy def et dama am kuy wax ne dañu war a découvrable le sénégalais doit être découvrable te foofu lañ toll maanaam dañu war a ñëw ni ñu doon demee di découvrir artiste yëpp di dem di découvrir culture yi jàmbur yi di dem di puiser fu ne ñu puiser fa c'est le moment pour ñëpp ñëw tamit xol li ñi def mais au delà de xol mais jël fi dara parce que amna fi quoi luñ fi wara jël amna fi donc voilà chapeau à à à initiative bi waaw. est-ce que événement la boo dina permettre musique sénégalaise mëna a frontière yi. mais jéggi na frontière yi c'est-à-dire gaay yi waxanté dëgg ñi sétane ñi di déglu ñu ci bari duñu ay sénégalais wala ay sénégalais yu nekk ci biti la bo démé bu waxanté dëgg rek.

malheureusement c'est pas rentable au Sénégalais est loolu la ñu war a xalaat maanaam li ci biti ñëpp di ko déglu naka la ñuy def ba mu amal njariñ musique sénégalaise parce que mënoo fi amul benn critère buy joxe disque d'or amul benn critère buy joxe joxe disque platine amul benn critère gars yi arbitrairement la ñuy choisir ne diw moo jël meilleur album diw mooy meilleur chanteur diw mooy nangam teguñu ko ci dara donc c'est le moment critères yooyu noonu maanaam chiffre les chiffres ne mentent pas. donc loolu la wara fofu la manam réflexion bi foofu la wara tendre vers moy liñu am nak la fexé mu rentable pour les artistes et pour les acteurs de la culture surtout mais jéggi na frontière waaw jaajëf. <laughs> alors Edias nga lay nuyu. waaw fay naa leen. huitième édition Sénégal organisé lii di Affirma noo gisee loolu. waaw nice hein, nice nice affaire yi mi ngi nice quoi parce que yaatal nañ ko ñëpp xaj nañ ci alhamdoulillah quoi. ñu gis Edias ci benen bunt. di seen beneen contrat ak li presse art nu mu demee anam waaw liggéey rek ah ba gars yi ñëw fekk suñu investir xaalis suñu di ñaan yàlla ñu bañ leen rusloo dans dans l'avenir quoi. actuellement lan la mën a yokk si musique sénégalaise. waaw comme lii ah parce que yii daa manqué quoi daa manqué. mais comme boog bi mooy huitième édition ñi ngi ñaan yàlla dem ba voilà suñu ay sët di ko ñëw di saan si incha allah